asalaamaaleykum mbokki Sénégal fii ñu taxaw nag ku ñu gis rek xam ni tey ci napp la ñuy wax ndax ñii ñu wër xam ngeen leen ci seen te xam ngeen leen ci seen liggéey muy secteur boo xam ne bii amul bu ko ëpp solo ci réew mi muy secteur de la pêche waaye ku ñëw fii ba gis fii xam nga ni jafe-jafe yi bari na quai de pêche bii fii ci Ndar nga xam ne ci naaj wi la ñuy yendu di liggéey ba bëgg a dee xam nga ni loolu ku ko gis xam ne coono am na ci booy wax ci napp fii Sénégal di nga wax ci licence de pêche ndax jafe yi mu leen indil waa secteur bu amee noonu solo amee noonu njëriñ ci askan wi di créer emplois di indi koom-koom di dimbali nit ñi ci seen dund ndax dund cher na te lii bokk na ci ñi li koy yombal mais ñooñu kenn warul leen bàyyi ginnaaw kenn warul ñàkkal fayda secteur boobu sur priorité nga ko def kii nag di président Macky Sall ak fukki atak ñaar yi mu fi nekk lii rek da lañ fi gis kee bi daanu jafe-jafe yi bari indi wuñu solution ci loolu bii projet nag ñëw projet wu Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye Cheikh Tidiane Dièye ñu tuddee ko la projet te ngeen xam ko am na yéene ci wàllu napp am na yéene ci wàllu napp boo xam ni incha allah ànd ak ci ak acteurs yi pour appliquer ko pour que benn jafe-jafe dootu fi des ndax xam nañu solution yëpp problème bi nga xam ni am na fi bokk na ci li nga xam ne dinañ ko indi mooy question wu sécurité bu ngeen di nappi sécurité ci seen wàllu liggéey ku wax napp wax ni ressource bi war nga cee jot te jën yi accord de pêche yi tax na tubaab yi ak seeni i bateau yu mag yeeg chinois yeeg yooyu napp nañu lépp yóbbu ko projet bi nee na dina réserver douze mille marins yoo xam ni ay pêche artisanale sénégalais yi kese ñoo ciy mën a dem. nee na accord de pêche yi ñu signé ak tubaab yi accord de pêche yi dinañ ko suspendre évaluer ko renégocier ko ba kenn dootu ci ëppale sénégalais sénégalais yi ñoom ñoo ciy dem. dinañu fexe ba licence yi nga xam ne da ngeen ko doon wuti feneen parce que il faut que mu am feneen fu ngeen dem nappi. ñu mën koo def ba kenn du leen ci nax kenn du leen ci lor négocier ko ak yooyu gouvernement ba nga xam ne di ngeen ci mën a jot mu yomb ngeen mën a napp indi man a jaay correctement ak ay entrepôt yu ngeen di denc seen jën yi ak ñu def ba nga xam ne ay récif ak repos biologique am na lu ñuy wax pêche illicite et non réglementée bari na dinañu fexe loolu itam ba négocier ko ñu ba defaraat ko ba nga xam ne kenn du jël suñu ay ay ressources kuy wax jën boo ko nappee tey waroon nga ko mën a garder une semaine ñaari semaine ñetti semaine te loolu ay équipement rek la laaj te loolu itam am na lu ñu ci indi ci projet bi te bu soobee yàlla dinañ leen ko defal dañu bëgg bu buñ ci yeggee incha allah mbokk yi le 24 bii ñu jëm bu ñu xëddee nañu voté ji gagné bu ñu ndogoo nañu jubilé comme ça mbir jeex